rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina nun ñi suñ boroom tawfeexale nu dëkk Touba di dëkku Sëriñ Touba bu tedd boobu ñoo ngi nuyu ñëpp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mii Sëriñ Touba ñu Mountakha ginnaaw bu mu nuyoo taalibe yëpp rawatina ñu dëkk Touba muy yëkkati ay kàddu yu mel ne yam daan yëkkati rek di xamle ne moom li yitteem mooy yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp mucc yéene ñëpp ak wér yéene ñëpp ngërëmul sëriñ bi yooyu nag lépp lu mu yaakaar ne dana yombal yooya fi ñu ci toll lam ci war a digle dana ko digle lam ci war a leeral dana ko leeral lam ci war a tere dana ko tere loolu nag buñ ko bu ñu koy wax liñ ci jublu mooy dëkkub sëriñ Touba bi di Touba ñëpp noo xam ne dëkk bi rek moo doon yittee sëriñ bi c'est ba sëriñ bi bind xasidaam googu di Matlabul Fawzayni ñu tuddee ko Toubaal Mahrousa kon lépp luy aar Touba lépp luy gën a sellal dëkkub Touba loola mooy li ko gënal di ko defe di ko doxe di ko waxe tey nag mu woon fi jëwriñ li muy liggéey loo ci Touba ñu xoolee jotaay bi danañ ci gis sous-préfet ndaam muy sëriñ Mansour Diallo ñu xam ne mooy yilif sous-préfecture bi wër Touba yëpp nekkal fa ki borom réew mi gis Sëñ Abdou Lahad Ka mii nga xam ne mooy maire Touba te moom itam mu muy taalibe Sëñ Touba buy liggéeyal Sëñ Touba ci Touba ci ay ndigal ay kilifaam ñu di ko taxawuloo dëkk ba muy meeru dëkk bi gis nañ ci jataay bi ñoo xam ne ñoo sëriñ Abdou Lahad Ka ñoo bokk liggéey boobu sëriñ Mamoor moom sëriñ Basiir moom sëriñ Fàllu mi ngi nii sëriñ Alaaji Njaay mi ngi nii sëriñ Fàllu Mbàkke mi ngi nii sëriñ Aliou Ñang mi ngi nii ñoom ñi ànd ci ñi bokk ak sëriñ Abdou Ka di liggéey ci meeri Touba la ñu bokk loolu nag li ko waral moo di ngir kaaraangi dëkk ba ngir wérug yërëmu dëkk bi ngir seelug dëkk bi daa tax bu yàgg lañ tàmbalee xalaat marché gerte bi ci gaar bu ndaw nu ñu ko jëlee barab bi mu nekk yóbbu ko fu mu xaj fu yaatu moo xam ne mooy gën ci ñiy liggéey ci liggéey ba waaye mooy gën ci ñii dëkk ceewet ga ak dëkk bi yëpp te gis nañ ne gouvernement bi jóg nañ ci àlli mbedd dëkk Sénégal gépp fu dara tege loo xam ne nekkul ci kër nekkul ci biiru marché ñu jële ko te bu ñu fàttalikoo Abdou Karim Fofana mi ñu dénk loolu ñëwoon na fi Touba ci ginnaaw lu toll ci ñetti weer ñeenti weer ci biir discours am boole woon na ci ne ñu xalaat ne bu ñu agsee Touba marché gerte bi danañ ko génn biir dëkk bi moom Abdou Karim waxoon na ko waaye laataa ma koy wax fekk na kilifay dëkk bi xalaat nañ ci ba am ay kilifa yu jotoon joxe ay terrain wax ne sëñ Ahmadul Mokhtar am na terrain bu mu joxe woon gannaaw bi ñoo xam ne sëñ Abdul Fattah am na terrain bu mu joxe woon ñooñu ba ñu joxe seen terrain yooyu lépp bëgg a defar Touba rek tax ñu jafe joxe ko bëgg itam liggéey boobu ñu yóbbu ko fa yaatu ndax la yóbbu daral ga ginnaaw ndindi yóbbu ko ginnaaw ko kàbbu te mu nekkoon fii ci dëkk bi loolu moo tax gerte gi itam bu ñu ko war yóbbu ci bitti. jàpp naa ne ña ña fa nekk yóbbu ga du leen war a diis moo tax sëñ Muntaxa ne nañ xam le ne moom joxe na ndigal ci marché gerte bi ñu génne ko ci biir dëkk ba jox na ko ñii di saytu dëkk bi buñ ko fa yóbboo ña fi nekk kenn ku nekk ñu wutal la barab boo xam ne dana méngook bi nga nekkoon ci biir dëkk bi nga nekk fa di fa wéyal di fa daan sa doole di fa dàq sa wërsëg di fa liggéeyal Sëñ Tuubaa boobaa mooy gën ci ñoom mooy gën ci dëkk bi mooy gën ci ñi dëkkee dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ndax nit ki lu muy def na ci jiital ak wér bala ñoo jaamu yàlla dañoo mën a wér bala ñoo mën a lekk mu jàll dañoo mën a wér kon luy tax wér a am loolu la sëñ bëgg kon nag loolu moo tax sëñ bi bëgg ñu jële fa lépp ñu dem ndax camion yi tuddaale woon nañ ko waaye camion yi marché bi moo leen fi andi bu fi marché bi nekkul kay camion yi duñ fa nekk ndax camion yi bu fi marché bi nekkul defuñu fa dara kon nañ yóbbu marché bi camion yi di deserté ji foofa kat yi dem foofa yóbbu fa marché bi lépp leer boobaa nañ ci sëñ bi lim sell gi mu bëgg dëkk bi dina ci am rafet gi mu ci bëgg dina am wér gi mu bëgg dina am jërë ngeen jëf